dama fas n'est candidat élection présidentielle bu Sénégal bu 2024 lan motax mo bëgg doon candidat élection présidentielle parce que dama nek ci dëkk bo xamné nit ñi añatuñu ba sour nit ñi lekkatuñu ba sour nit ñi ndekkeetuñu ba sour nit ñi reereetuñu ba sour

pour la première fois ci suñu taarix président bi nga xamné mom mo fi tok dotul bokk ci élection présidentielle lolu dafa bari lu mu wund dafa waré né ñun ñi nga xamné ño nek opposition nekk candidat ci élection présidentielle ak ki nga xamné mom la fi président bi bi fi nek tok tan ko mu nek candidat wam ñu nek ci xaste ñu nek ci waru ñu nek ci waru ñu nek ci wuruj

teg coalition Abdourahmane 2024 maay woote képp koo xam ne sénégalais nga boo xam ne gëm nga ni Sénégal mën na weesu fi mu nekk képp koo xam ne sénégalais nga boo xam ne gëm nga ni war nañu mën a béy dundee képp koo xam ne sénégalais nga boo xam ne gëm nga ni war nañoo mën a nekk ci réew mii te boo feebaree faju képp koo xam ne xalaat nga ne Sénégal dafa waroon doon dëkk boo xam ne dañ koy ñee wala warul ñeewaate maa ngi lay ñaan nga jàppale suñu candidature pour bu ñu demee élection présidentielle ñu gagné élection présidentielle bi nekk président de la république du Sénégal awale Sénégal ci yoonu jàmm awale ko ci yoonu teraanga awale ko ci yoonu koom wasalaam.